mu mujj ñàkk bakkanam coow loolu la nag daal di woy ba ay mbokkam daal ci bëggoon indi ay kàddu sëñ bi na leen nag nanu xaar ba nu def ci seen ay mbir ba pare e, tey jii nag ñu daal di jot ci xibaar ne xalif général daal jël na dogal génne douane yi foofu la ci biir e, Touba. douane yi tamit daal di nañ ni nangu loolu ñëw ni ki démb daal di indi seenum njaal ci benn million ngi teg téeméeri ni famille ki nga xam ne mooy Cheikh Ndiaye Guèye sëñ bi daal koy jëbal e, njaboot ga foofu ca Touba nag xam ngeen loolu lu fa yàgg la. Euh, muy benn douanier musu faa dugg di daq nit maanaam képp ku masaan di dàq surtout aju ci wàllu woowule lu ci ëpp boo duggee ci biir euh, dëkk bu sell ba ji Touba kenn dootu la tuy topp loolu nag yàgg na fa am te comme dafa nekk dëkk bu ma xam ngeen ne dàqante ci wàllum douane waxuma sax faatu waajooju le mais keneen mënoon na caa ñàkk bakkanam ndax ay oto ñu dàqante ci dëkk bu mag ci ville yu mag yi ci bëri donc ca Touba nag dafa am statut spécial boo xam ne moom moom moo ko amee ba tax na xalif général ba jël na ay dogal daal aaye douane yi ñuy liggéey ba yegg si foofu la ci lu dul loo xam ne xëy na ndigal lay doon